Euh, soli gusi moom tey lu ko neex lay mel des fois mu kolu des fois mu def lu ko neex euh, tey nag daf may jox sëñ Mara wala sëñ Bada ñooñu la may jox <laughs> moo tax waaw ma dee ci waxtaan bu baax a baax. si nga xam ne nii sëñ Bada la gën a ndurool a uh-huh. donc mu ngi noonu. maintenant euh, fi ñuy dooree mooy li nga xam ne nii moom moo nekk ki nga xam ne. mooy clash bi nga xam ne nii euh, pas clash mais Astou Sall parce que tamit dafa naqari à chaque fois ñu lay waxal te doo mën a tontu des fois tamit il faut que ngay tontu donc bind na benn texte bi nga xam ne nii euh, xam ne nii dañ yaakaar moo dafa marie parce que tombé moo war a ay gaaf dañ ko wax naan takk nañ ko deux jours wala benn 24 heures après mun naa def benn shooting bi nga xam ne nii pour affaire lancement de la nouvelle collection bi nga xam ne affaire mariage màggal gàmmu et cetera Sénégal yi peut dem tamit ba gëm ko alors question de mariage wax na ko nee na bis buy marié ne vous inquiétez pas yéen ñëpp di ko yëg waaye tontu na tontu woo xam ne texte bi mën na trois pages <laughs> ne nag nga bàyyi gars yi di kaa moo dem wuti liggéey moo gën ñuy topp naa ko moom day dañ koy takk dañ koy defali dañ koy defali parce que d'accord am na ñoo xam ne si lañuy am maanaam lu ñuy jëfandikoo maanaam si lañuy dund si affaire rumeur yeeg clash yeeg affaire yooyu noonu mais l'essentiel mooy nañ gën a focaliser wu maanaam seen liggéey te ñu bàyyi kàkkat yi bàyyi lu ñuy def parce que loolu du liggéey donc pour résumer tout sa en tout cas moo nekk noonu texte bi nag mën na trois pages mënuma lii lépp franchement. mën na nga tënk ko noonu. moo tax ma tënk ko noonu résumé ko noonu mais en tout cas saf na sàpp kontaan naa si moom de tontu ñëpp ñu nga xooloon ni war nañu tomb en naan soyez focus sur vos vies d'accomplir des choses comme ces que vous enviez. Rendez fiers vos parents. et se son battus en pour moi pour vous frayer un chemin dont choisir le bon. Donc choisissez le bon. C'est plus rentable. ngeen jariñ seen bopp jariñ seen réew jigéen gëm euh, jigéen ñi gëm seen bopp liggéey góor ñi uti lu ñu def ba ñu euh, baa ñu dem armée sama saa yi moom maa dem armée bu <laughs> fekkee moom <laughs> man la moom wax dëgg yàlla bëggoon naa ko mais mënu ma ko <laughs> donc mooy loolu alors ñëpp am jàmm du noonu mais nee na tuuti merci beaucoup maman voilà moo gën ni ngeen nekkee amul benn sens on vous pardonne mais prêchez plus merci beaucoup ça moom c'est une très bonne chose yaa ngi yàlla mooy si bàkkaar et ñoo ngi jégalu tamit dina baalu àq bu baax baax alors parce que daa bokk ma tudd naa ko je me sens busy sur ça ah bon nanta de salut désolé nag désolé nag de la longueur mais garaawul cas yi ngeen di topp moo gën a gudd n'est-ce pas oui c'est ça <laughs> parce que fii rek deux heures temps yi wax je vous envoie je vous envoie des grosses mois mm, à toi aussi please and love mes Néné Tuuti signé Ndeye Astou Sall votre ex-miss préférée et tu toujours notre miss préférée Astou <clears throat> waaw mais Momo. et c'est normal hein. c'est normal ah oui, bien sûr je suis totalement d'accord avec elle sérieusement sérieusement. bien sûr parce que neexul à chaque fois ay nit di wax ci yow lu positif lu négatif lu la neex ak lu la naqari. mais Momo c'est pas mhm. nit ku ci nekk rawatina jigéen. Mhm. boo sañoon am bés buñ lay buñ lay maye. mais mu nekk bés bu mel ni déglu ma. Mhm. ñu la koy gàtt ngaal nag. du ñëpp la ko du ñëpp la ko yàlla jagleel nooree ni dafa toog fii keroog moo xolom solo dane man sol naa fi yére bu bari couleur kenn ma kenn faalewu ma kenn lijjantiwu ma mais bu dee diw ak diw dinañ leen tudd parce que ñoo ni tol mm-hmm. ñaata jigéen ñoo fi nekk bëgg ñu ñu ñu di leen waxal naan diw moo leen takk ak ñi ñiñ koy waxal naan moo leen takk jigéen bu ci sañoon la plupart des femmes bu ñu sañoon ñu ne diw moom mooy takk moo moo leen di takk ñoom dëgg sax ñoom ñu waxal leen ko rek plaisir la ci ñoom. Mm-hmm. ba ab ah, bi luy loolu. nga gis am na ci jigéen ñoo xamante ne faiblesse ku siiw la ñu am. d'accord nga siiw yor xaalis ñaar ñu bëgg siiw yor xaalis. mooy si musiba nag. déggoo waaye doo bàyyi am na ci jigéen ñu mel noonu donte fa ndox daan taa boo fa demee fekk fay tepp tepp. kon nag moom moo bindoon ni ñu tëggee ko ñaari boor. d'accord te fii Sénégal kaay ma la bari na fi ñu fi sos nag waaye li ñuy li ñuy yokk moo ëpp li ñuy sos dégg ma ma ne. Mhm. Sénégal fii bari na fi ñu fi sos waaye ñiy yokk ñoo ëpp est-ce que dégg ma. Mhm. maanaam duñ ne sosaluñ ko. waaye am na ci loo xamante ni itam ñenn ci sénégalais dañ koy xam ne pat moom kon bu fekkee dañoo jël ku mel ni Ilimane Lam par exemple. Hmm. wala ku mel ni wàlli balaa ko sekk ne moom moo lay takk te bari jigéen ñoo xamante ne bu ñu sañoon ñu gàngaal leen ko sant yàlla la te am na yoo xamante ni man pour man moom moo jarul tontu xam nga bu fekkoon sax. Euh, dañ laa wax ne la da ngay da ngay cagatu wala da ngay jaay sa bopp wala nangam ak nangam laa bu boobaa mën nga jug leeral amul problème mais am na yoo xamante ni ay détails la. Hmm, mais peut-être dama ne. génn nga ak moom wala génnoog moom. takk na la wala takku la. c'est pas la première fois yàgg dara. moomoo yàgg bawul dara. c'est première fois lu tax mu bàyyi ba heure bi di doog a tontu. Ah, moomoo parce que dafa sës. waaw yow sës mooy lan. sës mooy lan waaw lan mooy sës. damaa toog fii ma ne la moomoo. dafa am lu jara tontu am lu jarul tontu. mais nit ñi bokk te ba pare degré yi waaw nit ñi bokkuñu moo tax may wax ak yow nii nit ñi bokkuñu moo tax may wax ak yow di la wax sama gis-gis xam nga moom dafa génn tontu ma lay wax ne la man bu doon man du ma def noonu. d'accord parce que dafa am degré yi maanaam doon naa comprendre ñu démarré ci comme li ñu démarré ak moom. da doon xeesal da doon nàngam dafa dem dafa def chirurgie dafa nàngam dafa nàngam yaa ngi dégg. Mhm. jékki-jékki jiñ la faux mariage jékki-jékki ne aj nag aj niveau bi yée diw day jaay boppam diw day nàngam diw day bu boobaa voilà mën nga ni laa voilà arrêté mhm. il faut arrêter quand mais nag ay ay ay faux mariage mais yàgg dafa dara. tey ji lim bu bu la bu la kooku takkee ëllëg it da dinañ xam ne bii mooy réel bi ak bii mooy faux bi kon loolu jarul tontu man damaa jàpp ni nag peut-être dafa def euh, shooting bi xam naa buzz ba mu ci doon séentu amu ca. parce hmm. que déglu ma. non buzz bi am may déglu. dag may déglu parce que na waaw yow doo ma bàyyi ah man boog man gisuma ko. parce man gisuma ko. Hmm. que man jàpp naa ni. rumeur yi jiitu na shooting bii nii. yaa ngi dégg bu shooting bi amee ñëpp dañ ne dégg kenn waxut wala yow yaa dégg ku wax shooting bi mu mu amee maanaam avant shooting bi moom euh, rumeur yi doon kan moo ñu wax ne moom génnewul rumeur yi pour pour jaay shooting bi. non da ay waay. non da nga posé question question répondre ma man la non. non je ne crois pas c'est pas ça. tey nga ma mën a tontu. waaw déedéet soit da nga may tontu lu leer ne ma waaw wala déet. mais je ne crois pas moom xaaruma ko fi. donc bàyyil ma poser sama question kon parce que tu n'es pas là pour me répondre bu fekkee xamoo waaw la wala déet. Mm. kon nekkoo fi pour répondre. j'ai le droit de répondre tu tu as le droit mais ndax am nga ci lu la leer ba mën maa tontu man tontu bu ma satisfaire foofu laay waxee moom man man man quelqu'un qui me répond par oui ou par non laa bëgg. Mm, pas je ne crois pas voilà bu woo réponse partielle. Oh, déedéet leer na <laughs> voilà léegi moo tax ma ne la yow mënoo maa satisfaire dama ne peut-être shooting bi buzz bi mu ci bëggoon moom la amul mu toog quelques jours waa ba léegi yow bu fekkee yow nee nga da ngay shooting ci jour bi loola tee wax ne dama doon shooting mais ne ne tuuti euh, mariage bi amul nangam ak nangam loo tee wax loolu. est-ce que amoon na temps loolu. ah mi ngi doog am temps. Mhm. léegi ñun nag amuñu temps boobu ñun. d'accord <laughs> boobu witoo pare après nga wax ni hmm. déet kenn dañuy kàddu euh, soxna ndayaas noon la tudd hmm. ah ñu koy ziar bu baax a baax di ko ormaan di ko ndokkeel te di ko jaajëfal hmm. di ko ñaan suñu borom defal ko tawféex ak ndam ak taysiir euh, di ko ñaanal moom it dañu ñaanal suñu ex-miss bi ni mu ko waxee moom mi ñu biiju ñu ngi koy biiju ñu nit man bu ma fekkee bii sama biisu mën na ma ko beral it dina ma gën a. waaw mënu ko waaw ah, kon bu ma biisu. Ah, damaa bëgg mu doon lu ber. sama <laughs> bu ber ko waaw ah, sama biisu bu ko booleeg biisu kenn danga may boole ñu biisu en tout cas daal. yéen nga sa bopp lu baax. Hmm? waaw dafa baax moo tax ma yéene sama bopp lu baax lu baax ñépp ko bëgg caaxaan baaxul. Hmm. Euh, moom moo leen na ci am moom dafa génn lii foog naa. xëy na man bi ma man xam naa ni shooting la man samay bopp. Mhm. man xamoon naa ko. waaw man xamoon naa ni shooting la. ndax nag euh, fañ koy fañ koy defee rek ak euh, nit ki damay bañ tudd sax di publicité waaye xëy na jour boobu it maa nga fa. Mhm. maa nga fa ànd fa ku tudd Cheikh Bané Diop ñu toog parce que ay yenn bijoux yi moo ko fa yóbbu woon Cheikh moom laa fi doon tudd. Mhm. keroog ci affaire de paiement avec Sabel bi moom laa doon wax noonu Cheikh Bané. moom laa fi tudd. ma moom man nag nangu naa man bugguma sax ñu tuumaal kenn nga tontu nekkal ci li nga war a nekk mhm. ci li nga war a nekk ak lu mu munti demee nekkal ci li nga war a nekk euh, ndax nag wax na dëgg moom soxna si wax na dëgg de. Hmm, man sama jëmi bopp man jàpp naa ni wax na dëgg. ngir hmm. nit ku nekk war nga lijjanti sa bopp ndax ku nekk boo talee say ayib. doo lijjanti ayibu jàmbur. Mhm. ndax moomoo bu fekkee danga yor ñaari kilo di lijjanti pepp jàmbur naa fekk nga te dof nga amoo xel. Mhm. bu fekkee da sikk un million fois. Mhm. di lijjanti di sikkub nanaa yoo ko jara saytu nga ndax nag nit ku nekk sa bopp doy na la misaal foog naa su ma juumul gee ko woy yu sunduur Mm-hmm. axiru zaman la ca teg mu ne da dama da fàtte ni mbir yi yëf yi du neenub neen mm-hmm. ndax lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole mm-hmm. moo xam lu nëbb moo xam lu feeñ waaw foog naa yusoo way loolu ma dolli la ci ne la is euh, Souleymane ne woon ginaar gi baax na ci kër gi boo mm. ko dàqee wax ci sa soxla waaw waaw Ah, tegoon na ko ci kees. waaw ah, te foog naa <laughs> am na yi nekk ko euh, El Hadj Ndiaye nee na. Mhm. bonjour comment ça va et comment va la santé. laajte wér gu yaram gi te ñun ñi ci feebar dafa xaw a bëri. mooy ñuy lijjanti mbir yi. waaye ñoom it seen côté ñoom it niñ tawatee dafa ëpp. ñoo mm. gën a feebar ñëpp benn. Mhm. ñoom la nit ñi xam ñooy bëgg ñu leen di tudd ñooy bëgg buzz ñoom ñooy bëgg nekk ci showbiz à cent pour cent. man moomu xam nga lu ma d'accordul ay mbir wees bu paasee nga wax ci kon ñoru la bu la ñoroon sur le sang lay doon. ak a leer. Eh, kon wax na laa laay wax est amoon na temps bu tontu moo ngi woon shooting moo ngi woon leneen si leneen est-ce que amoon na temps bu tontu te booy tontu bi da xam looy tontu doo tëb tëb rek wax te boo tëbee tëb rek wax te nga wax musiba. lii lan la woon sinap. Mhm. jamono jooju yaa ngi sinap. amoon amoon temps doolu vidéo am nga temps bindoon am nga sax temps ñu gis yenn robb yi nga dugal ko. Hmm. mais bind ak sol ça ba tey d'accord moo tax sànq xam nga tànk moo tax ma préciser ne la waaw waaw pare ci ko pare la. waaw da nga joxal ma dinaa. moo tax sànq la. Mhm. bi. <laughs> te nu ma koy wax quoi di ko tooñ c'est-à-dire dafa gudd gudd boo xam ne moo tax man la mhm. ëpp na sax trois pages. moo tax man la te wax. sànq yaa ni man ci monde cinéma lañ nekk xam neen scénario de. xam nañ scénario xam nañ réalisateur xam nañ ne kii réalisé xam nañ ko bënd scénario ni muy demee. Mhm. xaw ma nag lu mu ci bëggoon waaye foog naa ni bref yooyu sax amul solo moom la rek. Mhm. mooy xool nu ko neex mu koy defee mais foog naa moomu ki lay ñaanal ba di la gàngal sëy moom war nga kaa sant waaye waroo ko xas. ci jigéen ju war a sëy dañoo toll ci sëy ñoom. Mhm. dañ cee toll di. ndax nag ñoo nekk ci milieu boo xamante ni ñoom ndeysaan ñi ci baax ak a mais ñoom ñëpp dañ leen di jiiñ yi caga ak i géwén. moom oh, kenn mosu ko jiiñ si loolu wax dëgg yàlla. ba tey it waxuma la ko. ñi ci ëpp la la wax. dama ne la non je dama ko bëgg a préciser moom bokkul si gaa noonu ñoom dañoo toll ci sëy. Mm-hmm. ñu fës ñëpp xam leen. Mm-hmm. ma ni moomu foog naa ku la ñaanal sëy santal yàlla te daw ndax ñoom ñu ci ëpp ñu leen di jiiñ ay géwén ak i caga. Mhm. kon bu ñu leen la ay xar yi sa xel war na dem nga kontaan. waaye doo ko xul wala fo ci sama xalaat. Mhm. am na ñu bëri ñoo xamante ni takk nañ leen yëgoo ko. Mhm. am na ñu bari ñoo xamante ni xam naa leen xamoo leen def nañ ay mariage shooting shooting nañ seeni anniversaire shooting nañ seeni mariage. ba sëy yëgoo ko. parce que xamoo leen. poste seen post yi ak ñoom ñii ñu génne waa Tamba nga koy yëg te gisuñu leen. Mhm. waa Matam koy parce que ñoom la yàlla lay natt ñu siwee noonu. Mhm. li Seck Sénégal gépp a ko xam te demul fépp. Mhm. moom lay wax musique da lay tukkuloo sans passeport chaque ñoom it seen image tukki noonu parce que Miss Sénégal nga wax ex. Miss suñu Miss Sénégal yëpp ñu ne la yaa dàq def la Miss. ñaata Miss om nañ fa kenn oh, kenn siwul. moom te ba léegi yaa ngi ci toile bi. ah. ah? Mhm. man moom laa ciy dégg ak ndeysaan su ma toogee di fàttaliku Erika. ak Adja Diallo wala yaa nekk woon Miss. ah wóoru xëy na mënoon na ko doon mais ah, wóoru ma. je sais mhm. xamoon naa Erika. Kati Chimère Diaw. waaw ah, Kati hmm. tax kon léegi Miss yi siiwatuñ. yaa ngi comprendre. rek. waaw xam nga lu tax. <laughs> ñoom dafa am fuñ kastew. moom it mu am fu mu ku ci nekk fa nga casté wu loolu la. ba pare y avait Oscar des vacances. d'accord casté ah, boobu moo la yëkkati. waaye foog naa daal liñ ko ñaanal lu baax la. acca moom jarul xastante ak yi waaye nag kàddu yi mu ci wax. Mhm, dëgg la dëgg la de. dëgg la bu wér. merci beaucoup en tout cas ñu leen jaajëfee bu baax a baax alors moo ngi noonu mu nekkoon réponse bi nga xam ne nii Astou Sall joxe na ko euh, waaye comme ni koy waxee rek d' ak moom comme ni ko Ousmane waxee 2016 ba léegi moo ngi fi te pourtant euh, moo ngi sur la toile ba léegi sa veut dire que moom moo ko liggéey euh, man ma si gën a neex ma chaque fois buy génn maanaam. li muy wane li muy fasandi bu baax a baax taalibe sëñ Babacar Sy la surtout loolu donc moo tax euh, nit am cofeel benn si moom alors ñoo ngi nuyu baax a baax ma dem Diop te moom xam naa ko daan bi daan ay dara ñu koy nuyu bu baax a baax euh, Fatima Diouf merci beaucoup Aïda Goudia bi merci beaucoup Fama Kassé yaay Ousmane suñu yaay ñoo koy nuyu baax a baax di ko bu wér a wér alors mhm. buñ paree foofu nañ dem si li nga xam